ci diggante bi tey lan nga leen di wax muy Choco ak Adamo parce que gis nañu ne kii dafa ñëw fare fii kii fare fii ñoom ñaar ñu def seen groupe gën a yokk coow li ndax gisoo ni tey ñoom mën nañoo yóbbu coow li foo xam ne waru faa yegg. Isaax ak man du ma leen xool man barki Seydina ah du ma leen suivre ak Masul Sabande man sama bopp laay suivre yow xanaa man sama bopp laay suivre du xam. lu tax dañ dañ la gën a xew dañ la seetaanatu. tax nga man man ku ma xam man man ku ma xam ku ma xam xam nga ne àddina àddina àddina maa ci gën a xew loolu moom leer na moom. Ah xale yi génte damaa ci gën a xew. Mhm. loolu moom leer na. mais jamono ji Soko la ñuy seetaan ak Adamo de. waaw waaw c'est normal parce que Soko ah liggéey rek du lu ñaaw man xaw ma ci a def interview wax ma wax du ma du ma ko dépassé ah? mhm. waaw man ku wax ci man dara dama koy faj yàlla defal na ma loolu mais du ma nag du ma saaga seen yaay. Mhm. seen yaay moom boo saaga. waaw yàlla dafa def du ma saaga seen yaay moom sérieusement mhm. am na am na yaay yoo xam ne boo leen saagaa ñu dee parce que dund ñu dund bu neex bu mhm. leen saaga ñu génn àddina xalaatuma loolu caat du ma saaga mhm. euh, ah, saaga wala da xam doon ma dóor saaga lañ mën ko faj Hmm? waaw xanaa xanaa yàlla ma visa bu yàlla may visa na ma mais bu yàlla may visa rek foo nekk dinaa moo tax nga ni boo jàppee Adamo di nga ko dóor. moo xam na loolu moo moo moo la gën a xam loolu. foo teg loolu. ma ko mën man lenn maa gën a réew lenn ma nañ barki alxuraan leen maa gën a réew téeméer moom xam na xam na kuy Pawlish. ci réew mi gis nga fi ku gën a réew Adamo. non non non xam na saaka du réew. Mhm. réew na da ko koy juddwaale xam luy réew xam nu nu war a réewee moom du ma te damaa réew. moom xam na moom xam na Pawlish bu baax a baax ak ma xanaa yàlla xanaa yàlla bañ maa may visa mais bu ma yàlla mayee visa fu ma ko mënta fekk ci àdduna ak ma suul sama ndey ak ma ko fekk dinaa moo xam ne dama ko durum moom a xam loolu ah na xam na Pawlish xam na bu baax a baax man du ma nekk fii naan ay ay nit naan kaanu juboo man du ma ba nuyoo juboo dama lay nokk ba nga xam ne nokk naa lañ soog a juboo waaw foofu laa bëggoon ñëw est du da nga bëgg a juboo ak moom moo tax nga koy provoqué di nokk xanaa xa juboo xanaa mooy neexal mhm. sama xarit la man naa dinaa wax loolu ma ne yow man dinaa jubóog sama benn morom yow mhm. ay xale may xale man dinaa jubóog mhm. non nee naa la xanaa yàlla bañ maa may visa bu ma yàlla mayee visa fu mënti nekk ci àddina naa ko fekk ah bon lii du menace menace dama ko dama koy wax li li am te loolu li ma la wax moo am te moo xam ne ni li ma koy wax dama koy def su ma ko deful yàlla na ma sénégalais xeeb barke Seydouna Muhammad su ma ko gisee dama koy dama koy dóor bu mu tëdd barke te dóor bi yëpp dinaa ko vidéo ba ñëpp xam ne vidéo naa ko ma partagé ko fépp barke alxuraanu karim mhm. dama ko dóor ñu naan dóor naa ko gisuñu ko dama koy vidéo moo xam na loolu xanaa mu daw te bu dawee sax fu ma ko mën da fekk naa ko dóor mhm. barke yonent yàlla Muhammad hmm. billahi wallahi xanaa yàlla bañ maa may visa rek te man alaa kulli àllin da yàlla damay may visa mhm. muy app naa ko vingt ans app naa ko cent man Europe dama fa gëj fal force dama am visa. Mhm. yàlla xanaa yàlla bañ ciy àntu mais bu ma ko xasee ba am moom fu ma ko mënti fekk xanaa mu toog néegam bañ a génn. Mhm. mais ñu dayee ci milliers ni ma koy koot naan ko sama xarit nga dama ko dóor nekk parce que foofu gis nga ñi nga xam ne ñoom ñoo waa subateel yi bañ ko naray song dafa woo euh, police mu ñëw mu ñëw artu ko ndax jàpp gisoo ni tey boo defee loolu mën na la indil jafe-jafe mais parce que booyu ñoo xamul tukki rek ah bon que xamuñu parce que c'est amplifié ki leen yóbbu euh, ki leen yóbbu bëggul nit bëggul histoire. Mhm. man damaa bëgg histoire te man kenn yóbbu ma maa yóbbu sama bopp. d'accord léegi xam naa ni xam naa ni xam naa ni xam naa ni ay comprendre ñu woon. Mhm. léegi suñu fa yàggee dañ comprendre. kon Pawlish pare na pour jàkkaarloog Adamo. xeex ak moom ndax yow yow du ma nga wax. non du xeex mais Adamo dafa am doole comme mhm. dama koy ndox. billahi wallahi moom moo la gën a xam ne foo ma gis naa ko. du mu tax nga sa doole ba ne danga koy noq en tant que góor ak góor. non comprendre sa yow. li muy wax man xam naa ci dara xam naa ci dara baax a baax. d'accord te du ci waxaat mukk ba ma jàkkaarloo ak moom. Mhm. li ma leen li ma wax ni dama koy def dama koy def. Mhm. kon loolu message la boo ko lancé. mu dégg na ko te xam ne dinaa ko def moom nag xam na la mën ci après après na génn saaga ma wax ci ma lu ñaaw man du ma saaga du ko def dara du ma ko saaga. Mhm. du ko saaga du wax ci yaayam lu bon du ma wax yaayam lu ci lu ñaaw du ma ko def loolu mukk ci àdduna mais ni ma ko bëgg a def ko def. mais moom tontu na la de nee jamono ji yow rek lay xaar bu dee am nga fit daggal ñëw fekk fekk si ko yàlla ma yàlla may visa wallaay mhm. ñaan pare d'accord su ma ko yàlla may su xam ne dinaa ko amaat incha allah lan mooy seen problème te ngeen bokk faramaareen yéen ñaar ah, affaire bi bokk faramaareen man ay bokk faramaareen yi intéressé ma li ma intéressé mooy man sama bopp moo moom na bokk sax Ousmane Mané sama yoon nekku ci mais li ma ko bëgg dama koy def waaw d' accord est ce que du Wally Seck lim ko gën a jege jamono jii mooy dagg xolu Pawlish. ah dégg nga ko chaque jour dafay wax dafa jege Wally Seck faram la Wally moom lay déglu chaque jour mu wax ko. da ngaa bokk la leeral la yow. waaye moom moom na ni moom sori na faram mareen bu yàgg. d' accord am na solo jërëjëf sant la bu baax a baax jaajëfal la ci kàddu yu am solo yooyu ñu ñëw ci mariage bi nga xam.